الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيلا الخميس دي di ñaari fan ci saxur ramadan di ñetteelu guddi ga ñu ñëw ji naafile koor gi bëgg nañ ko ci julli juroom benn raka raka bu ca nekk nga tari ca fatiha benn yoon inna ansalnaahu fi laylatil xadri ñeenti yoon qul yaa ayyuhal kaafiruuna ñeenti yoon juróom benn rakka nag ñetti selmal lay doon ñaar selmal ñaar sëriñ bi neen ku ko def dana mel ne goreel nga junni jaam dana mel ne itam ku jox junni nit ñu wooroon ndogu ki leen koy baaxee di seen bokkum taalibe Sëriñ Asan Mbàkke na بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات